waaye ku ci bëgg a am nooy def xanaa nga woote ci numéro téléphone bi 77 251 04 05. ngir google ci seen bëgg-bëgg digital store indil na leen ay xeetu smartphone ak i tablette sur Android 9 yi mujj génne te xew ci jamono tablette Core T4 smartphone Core x ak téléphone flottant Shark X3 ay xeetu appareil yu yéeme te soppi doxalin yu dëgër te nangoo yàgg lool te li ci gën a doy waar ndox mënulu ko dara appareil yii ñuy ànd ak yéen fu ne ngeen di ci liggéey lu leen neex mel ni ko toog seen bureau Core T4 Core x ak Shark x ak ñoo dëgër te méngoog jamono te dañ leen a mandargale ci norme militaire bii di IP68 boole ci lu ñu ànd ak alarme bu leen di aar Crosscall te kër gi leen liggéey moom dong moo nangoo garantir ay appareil am ci diiru ñetti at mën ngeen a jokkoo ak ñun ci suñu boutique showroom avenue Bourguiba 33 825 73 00 wala ci sambi junni sur la corniche 33 823 77 87 Digital Store améliorez votre quotidien mbokk yi actualité la semaine ñu jeexloo ko ak euh, Batla Joola bi 26 septembre la musiba mbaa kumba bi amoon ci atum 2002 26 euh, septembre 2020 di fukki at ak juróom-ñett ginnaaw bi nga xam ne tiis bu metti boobu daanu woon ci bu senegal ba tey xol yi di ci fees naqar ba tey dëddoogul ci ci jëye jooju mu nekkoon bata boo xam ne mën nañu jàpp ne cinq 500 et quelques de passagers la waroon a def ak presque 44 euh, yoo xamante ni ay homme lañ ay équipage la. loolu lépp tey ji ñu gis ak 2000 yi nga xamante ni moom la yaboon di càggantef ga amoon ci jamonoy gouvernement ba ak ñi ngànkoon liggéey boobe mu nekk loo xamante ni askan bi ci loru ba tey duñ ko fàtte ñenn ñi sax état doomoo leen ñuy wax pupille de la nation waaye nag dige bor la ba léegi njaw di des suñu xambin ci loolee nga xamante ni am na ci ñoo xam ne ba léegi ñu ngi saako à ce que l'État respecte ses engagements d'abord Euh, renflouement bu bato bi génne ko bokk na ci mémorial bu euh, euh, Dakar Ziguinchor ba léegi askan bi les la les familles des victimes toujours réclament ces pro ces ces promesses yi nga xam dañ ko war a tenir mais également bëgg ko justice soit rendue soit faite par rapport au responsable yi nga xam ne ison ont été cités ci euh, nag euh, la faute euh, également et c'est c'est ce drame qui a coûté des des milliers de de de morts yi nga xam te moom moo di doomu xebu Sénégal kon ma jàpp ne tey jii jéye ji amoon foofeet dama koy faral di wax wax naa ko rek yàggul bu ñu moytuwul sax lu ko raw parce que dañuy gis dañuy dañuy gis lu ne c'est que médecin après la mort mooy suñu problème fii sax dañuy gis ay station yoo xam ne ñaari station yu denn te loolu c'est dangereux jàkkaarloo wala nekk si wetu kër yeneen ak yeneen les normes sécurité ne sont plus respectées ce qui est très dangereux te loolu dañ ci war a taxaw l'État c'est son rôle son rôle de réguler c'est son rôle de veille également qui est le garant qui est qui est le garant de sécurité parce que dañ ko dénk suñu réew càmm gi maanaam état mooy càmm da nga war a sàmm sàmmkat bu nekk dañu lay laaj nag li ngay sàmm nan la ko nan la ko nga ko sàmmee embouteillage yi tey la gën a oto yi tey jii même Covid bi ñuy wax ay ay nombre de place debout nombre de place assise mais nañu waxante dëgg oto boo xam ne la taxaw ñu ëpp foofu ñay toog bay wengulu dañuy gis musiba ji yi di ñëw ñu di ko ta ñu ko gàttal ñu di ko jox loxo di ko nuyu waxtaan ak moom ta dalal ko nag tatagal ko ba mu ñëw nag ba ne mëm ñu teg ko nag commencé nag ouvrir les débats ratatat l'enquête sera ouverte nangam forage daal di xëddan mbedd yi tali boo fi jaaree oto yi nu leen neex la ñuy dawale y' a pas code de la route code devant la ñuy def c' est du n' importe quoi da ngay gis fii dangay ngay yëpp oto ay bagage ba mu fees del ca kaw da ngay gis gros porteurs yi liñ fi waxoon yëpp dara amu ci seen circulation en pleine journée di njëkkante ak oto yu ndaw yi fees dell péage yi xat mais ñun dans quel pays sommes-nous il est que nag ñu régulariser régule organiser ce pays réew mi dañ ko war a nëppal je pense que l'histoire du Batalo Joola aurait dû quand même servir beaucoup de leçons à nos autorités surtout actuelles parce que ñoom en 2002 gis nañ problème bi am te ñun en 2012 ñu accédé au pouvoir yaakaar naa ne war nañ ci tirer ay leçons yu bëree bëri éviter à ce que ces genres de drames ne se reproduisent plus parce que nag lu ëpp tuuru nañu taxawu famille ñi nga xam ne ñoo ci loru ñi nga xamante ñooy njaboot gi toppatoo leen taxawu leen xool seen mbëbët seen i njàmbat donte état bi wax dëgg yàlla am na lu ñu ci def it ndax pupille de la nation bi am na ci vraiment liggéey bu am solo bu ñu ciy def ak ñi ñu ko dénk kuréel gañ ko dénk waaye tamit wolof dane baax si baax gën dafa bu buñ ci gënee taxaw dina nekk lu am solo ñu organiser waat le secteur du transport également ak lépp lu jëm ci moo xam transport maritime moo xam terrestre ak aérien y a que du n'importe surtout le transport terrestre